الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على كل حال مكي نيغي ني نيب دي لين زيار دي لين نيانال جام دي نيان سون بروم سبحانه وتعالى ديفال ني توفيق دي نوي مبولم نيغا خامني داني ديغلو كارد بي فون مانا نيك تي كاونو بي يالا ديفال لين جام ديفال نيكو تاي نك داني نيو تومب بو ام سولو ني فاسيه نكو وقتان موي گنت ني فاسيل لا wala gént faje soxna nañ leer laale mbir yu am solo bu ngeen gisee buñ jëlee benn tomb ci wàllu gént balaa ñu cee wax dañuy leeral tomb bi jël mooy lan loolu dana dana tax tamit kiy déglu xam li muy déglu solo si mu am te jii boo ne gént fase rek waxtaan ci dem gaa dana am solo waaye dañoo war a leer lan mooy sëy ak lan mooy fase bu ko defee day tax ñi loolu intéressé nañ ci mën a sukkandikuwaale ki nga xam ne daa gént ñu fase ko dana mën a intéressé wu ci loolu loolu tax suñ jëlee benn tomb ñu koy leeral leeral bu yaatu nga xam duñ ci mën a ñëw pour jël ko jotaay waaye dinañ ko leeral ci biir tomb gént boobu divorce nag tubaab ba koy wax bu dee wolof di wax fase bu dee arab di wax attalaq mooy diw kóllëre gi doxoo seen diggante yeeweeku na ci diggante ñaari way dencante fase nag balaa am day fekk ñaan nga may nañ la ñu ne fase nga bu diw amee moom nag moo gën a nekk mbir bu gën a bari jafe ci penc mi ci côté diine am na problème ci côté yoon am na problème sabab yi nag bëri na yu ko indi am na ci yoo xam ne ci jëmmi ku góor ki la am yoo xam ne ci jëmmi ku jigéen ki la am yoo xam ne sa jëmmi sa baay la wala sa yaay wala say famille lu lu lu dagal la nag lu mën a nekk la lu lu lu lu yoon nangu la bu dee ci yoon yi ni àttewoo yoon nangu na fase bu dee ci diine tamit diine nangu na fase bu ñu wax fase nag mooy diggante góor ak jigéen ñu ñaan lan fas ab sëy xëy na nit ñi bëri niñ ko jàppee méttiwul noonu mooy lii fasub sëy mooy ñaan naa la sa doom ji wala sa rakk ji wala sa mag ji nga ne may naa la ko nga ne joxeel can can gi ñaata la joxe nga ko lii rek mooy kii bi de lii kese mooy muslim lii kese la mooy ñaan naa la xabilta mooy nangu naa may naa la moo xam nga defee ko ci jàkk mbaa nga defee ko ci biir néeg li ci am solo wér na li ci nit ñi def yëpp ay aadal rek mooy séddale gura géeg yëgle ko yooyu yëpp lu baax la lu ñu mooy pour seetaan ndaw si ak góor ki ba bu ëllëgee bu leen gisee ñu taxaw ñu xam ne kii soxnaam taxawal wala kii borom kër taxawal séddale gone eh, yépp pour eh, pour aada rek ba ci ceet gi ceet fi mu moo gën a tegu ci yoon sax ngeen di fi doon ndax ceet li ñu jublu mooy siwal wane ne ndaw si ngeen doon dégg te ko seen am na borom kër kii mooy borom këram ñu dajee ñëpp dajee boobu ëllëgee mooy tax boo gisee feneen bu taxaw ku jigéen ku góor wala ku jigéen nga xam ne kii kat soxna si jàmbur la lii mooy mbir mi de dañ ci des yëpp xutba yeeg yu ya, baax la pour dajji leen soññi leen rek pour ñu gën a bàyyi xel ne am na kóllëre gi leen boole kon balaa ñu wax fase dañ lay may dañ lay may da am soxna euh, fase nag bëri na anam yu nu ko mën a defee nag ci bu dul gént anam yi anam yi am ci fase ak bëri te bëri ñoo xam ne gudd yu ñu toll moom wax dëgg yàlla dañuy wax rek waaye yorum soxna de dañoo yor nii <laughs> di tëdd ak ay jigéen di fanaan ñoom rek waaye ñu ngi ci njaaloo bu yàgg sax bu demee ci wax gi dana leer kon góor lañ may mu am ñeenti soxna bu dee ci sariya islam yi nag lañ wax nag waxuma leneen loo xam ne ay mbiru baat yi nag yooyu moom ndax bëri nañu koy wax ñoo xam ne àggul fa Euh, moo tax sariya dafa wax ne bu goor la sañ na tak ba ñent moy masna wa wasulaa sa waru baax waaye nag lu ci tak bu ngeen ragalee du ngeen mandu ngeen yem ci ben mandu nak ñu ko nit ñi jàppee ak luy mandu du ben yi ay détails la yoo xam ne dinañ ci leer lañ ci mëna leeral xam nga ñu bëgg jappé mandu nga am ñaari soxna ki nekk ko am yaram ku am ponkal lol kii nekk ku tuuti koo xam ne ñaari mètre na ko jot nga bëgg a yem ne ne kii ñaari mètre lay sol kii ñaari mètre lay sol loolu moom du ak maandu loolu moom loolu la mooy ak jéng dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg loolu mooy ak jéng kon yooyu yëpp day am te ñu bëri ñu koy jaawale bi ci desaat bu dee ci alsariya amul problème ci wàllu sëy nit ñoo ko diisal ci aada yeeg tappale yi ci dugg rek soxna suñu nekk da ngay xool fa mu dëkk nañuy dundee nga di ko dundalee noonu tey ji ki nga xam dafa nekk ndakaaru ndakaaru laaj location luyel ko barab utal ko lieu studio wala néeg bu am salle de foofu loolu la laaj foofu nga def ko ndax parce que jamono jooju moo laaj ki nga xam ne fi mu nekk bu fa amee benn néeg bu baax mu am lal baax na kooku moom foofu loolu la aajow ku nekk da xool fa fa mu nekk la ñuy dundee nga di ko dundalee noonu ñu bëri na dañuy jàpp ne tey jii da nga am soxla si nekk Ndakaaru nga war ko mën a utal studio lépp mat nga bëgg koo tëkkalee ki nga xam ne ca àll ba fu mu nekk mënoo fa am studio mënoo fa am loolu sa moyen matewu ko foofu loolu ku ne mooy maandu loolu du loolu mooy ak jeng kon loolu lu ma di bàyyi xel bi ñu desaat fi nga fi nga féete dafa liggéey sa soxna si fa nekk foofu fa nga faa féete foofu féete wu pour soxna waaye da ngaa kon ki bëgg yemal ne yow da ngaa nekk Ndakaaru soxna sa nekk ba Kaolack nga bëgg a ne maandu mooy day ma fanaanee Ndakaaru ñaari fan te Ndakaaru ngay liggéey sa moyen mate wut sax nga dem Kaolack nga ne loolu mooy ak maandu loolu du ak maandu ñu bëri ñu ngi koy wax kon sëy nag ni ñu ko mën a defee bari na Eh, nit koo xam ne yaa ngi jublu jublu ay fase mooy sa soxna si ka da ngeen doon ànd divorce yi ñu ko mën a taar ñu ma tegee pour divorce bari na dañ ne la soxna da nga koy dëkkal dëkkoo ko di ko faj di ko solol di ko dundal ñu ne juróom yi benn waru cee manqué ci misaal soxna si kat ñu wax lépp ñu la yaa ko war a def nga ne waaw baax na soxna si ñu ne la ñee ñeen wala juróom yi su si benn manqué sëy bi mën na faa jaare tas bu dee ci wàllu lislaam lañu wax ne boo ko teg ci am xel mu neex ak nag xëy na ne suñ aada yi moo moo baax ba tax yu bëri ñu koy muñalante gaa yi am na aada am na yu baax am na yoo xam ne baaxul mooy mbir mi bu fekkee da ngeen dem mënoo ko dëkkoo te mënu koo muñ kooku su su dee ci lislaam bu demee ñaan di force dañ koy attee ñu ñu tas sëy bi amul sax ma dem ñëw ndax parce que da ko war a dëkkal gi nag waxu nekk nga dëkk ci benn barab ngeen dëkkandoo ci benn dëkk nga mën a dëkk ci néeg bu baax mën ko dëkk ci néeg bu baax nga dëkkal ko ci néeg bu baax dëkk ci néeg bu baax yow dëkkal ko ci néeg bon loolu bu baax dañ naan ko dundal gi nag mooy li ngay lekk sa wërsëg lam tollal nga di ci dund di ko dundal kon danga ko war a def nga war di ko faj bu feebaree mënoo koo faj ko am soxna mënoo koo faj bu feebaree mënoo koo dëkkal mënoo ko dëkkoo koku sart yi tax ñu ne soxna bu deme ñaan ci walu yoon imam bi wala xaadi bi atte ñu yégal sa sey même bu dee ci walu yoon tribunal bo fa demee bu dee mëno dëkkal soxna mëno ko dëkk mëno ko fajj yow do ko yor soxna ndax jigen dafa dafa am lu manké dafa néew doole kon dañu bëgg koy taxaw su fekkee mëno ko taxaw ci lan nga koy doyee lan nga koy yoré dañ ko waxante dëgg te yalla tax bi yaa tamit di tax divorce yi bari conseil yi mo bari tay am ñoom seen sey la nga tas ci ci tiktok bi ñi waxtane wala ci youtube bi ñi deglonté fa la fa la tassé ndax dégg na fa benn way wala benn jigen waxna sama jëkkeur far fort na nga la may defal nga bu ko fort sa jëkkeur te sa jëkkeur jëkkër ak jëkkeuram du benn moy sa borom kër bi jaat problème sey kenn mënu ko réglé ci kaw suuf ba réglé wu mën ta nek ku ko bëgg réglé tamit problème lay doon ndax yalla xamna mën ta nek motax ne bu ngeen ta and na ngeen takaliko sey nak su amé problème yalla indi won na ay solution la waxone bu ngeen amé problème nañ dajé fa la fami bi fami ku góor ak fami ku jigen ñu tok waxtané lan moy jafé jafé bi ak ki lan moko war ak lu ko mëna a ak lu koy dindi léegi lool amatu ku góor ki moy tok ci ben négam rek jël décision am la lool ku ko def yi am ci euh benen bi ci dessat ñi nga xamné ne dañuy xool ju rafet diko tak yeen musa sallam bu ngeen tak jigen na ngeen tak jigen ngir ñent ngir rafetam ngir askan bu mbok ngir alalam ngir diineem mu ku takkul ko am diine nag dóor nga sa loxo ci ëkk mooy ñu dal ñu bari jigéen ju rafet nga takk ko rek fooy mujjee tas ak foo foo gis jigéen ak dugg ci sëy mag ñi dañ doon tànn fu ñuy dugg moo tax sëy boo tànn fooy dugg doo am jafe-jafe boo tollee sa takku soxna nga déglu sa yaay ak sa baay ñu teg la ci yoon dugal ci fay bu baax amaana ka ngay am sëy bi day neex lijjanti ndax sëy bi ñëpp ciy jàpp kee yaayam da ciy jàpp kii baayam da yow sama doom kat naa ko sa doom ñu dem waxtaani ba may la ko loolu day rafet ndax ba sëy boobu noonu ku ne di am looy bàyyi xel bokkut teg man mi dox xool as ndaw su rafet ne moom laa bëgg dama koy takk say mbokk wax man dama koy takk loolu bu ci bu njëkkee ci jàmm tamit du ci mujj moo del xool yi nga xam ne bàyyi daa bañ yaay bañ ñëpp bañ yow yow yow ko jigéen gi ci lu ci bëri foo ko gëstoo problème lee problème ndax parce que lii problème mooy yow mun doo dem kenn di sa bàyyi dañ la woon bàyyil bul dugg sa yaay bul dugg nga dëgër bopp dugg bu ko defee ñëppay dégager seen responsabilité bàyyi la loolu bokk na ci yiw ba motif de divorce yi bi ci desaat divorce yi yu koy waral am na joo xam ne am am la ndaxte tey ji ndaw soo xam da nga ko wan ne ko man am naa xaalis patati patata gëmloo ko lu ay dëgg bu ñëwee gis na loolu dëgg day tas sëy bi loolu amul sax dem te ñëw moom jigéen ju wan góor jikko ju baax ba mu takk la ba mu ñëw nga soppi say jikko loolu du ngeen mën a yàgg ndax parce que da nga ko wan ay caaxaan da nga ko dëgg ba noppi genre sëy bi li tax muy tas mooy comportement yi nekk seen kër moo tax comportement yi mooy lan sa mat ak say yaay say baay dañoo bëgg a jàppee sab soxna jaam ak sëy nag ànd nawlante le nañ ci waxante dëgg te yàlla tax ak njaam mooy ku jigéen ki du jaam de ñëwul sëy seen kër am na ñoo xam ne li ma jàngat mooy dañoo bëgg ko liggéeyal seen waa kër te mun mënuñoo jël jànq lu ñëwut mooy takk as soxna ba ko seen kër duñ fa jaar duñ yónnee duñ def dara lu dul dépense kese lañ lay jox jigéen googu day gaaw a ràpp ndax parce que jànq lañ la jàppe loolu nañ ko bàyyi xel jigéen si ànd nawlante la te problème yi am ci wàllu sëy lu ci ëpp ay jigéen na ko waral donte góor ñi am na ci ñu ko waral waaye jigéen ñoo ko waral boo yoree soxna te mënutoo ko yor te mënutoo ko dundal mënutoo ko yor demal bàyyi ko borom uti keneen nga uti keneen képp koo xam nag jëf nga ay jëf yoo xam ne dañ nga cee jublu di force sëy bi day tas ci misaal sa soxna amul la def lu naqari ngeen ko fase naa ko foofu dañuy jàpp ne fase mi tàbbi na moo xam dama daan kaf wala kafoo say ay fase kenn du kafaale fase ñuy kafaale mooy fase naa sama dama daan kaf loolu dañuy jàpp ne fase bi tàbbi na mooy benn tàbbi na na ñaaral mu leer bi ci desaat ku ak kayit ne lii dama ko jublu lettre bi sama soxna bu ko jotee fasewu na lettre bi sa soxna saa bu gisee jàppal na sëy bi tas na loolu amul dama dem te ñëw bi la fanaan mooy ku bind benn lettre jublu ci fasewu ak jëpp jëf joo xam yaa ngi koy jëf pour jublu ci fasewu bu wax jooju noonu bu jëf jooju tàbbee dañuy jàpp ne fasewu tàbbi na même ki nga xam ne dangaa yónnee vocal sa soxna dama ko yónnee vocal pour fase ko na dem yéene ji daal mooy naa ko fase mu génn suñu kër si déglu vocal boobu noonu jot ci bu ko dégloo sëy bi fasewu ndax yéene ji moo ci am solo jubluwaay bi ñu bëri nga koy def te njuumte la moo tax ma ne ñu bëri yor soxna dañoo yor as soxna di jigéen tëddëng waaye njaalo la mooy koo xam ne amagoo soxna nga ne sama soxna kat su defee nangam ma fase ko mooy dama koy fase moom sëy bi day daal dog kooku moom képp ku ko def nga dem am soxna soxna def loolu sëy dañuy wax ne fase bi tàbbi ndax parce yaa yaa gaaral ay mbir yoo xam ne ñëwagut kii ne sama soxna boo demee kër sàngam ma fase la bu demee kër googu sëy bi day fasewu te ñu bëri koy def sama soxna defee nangam fase naa ko mu def ko kon fa kon dañu jàpp fase bi tàbbi na moom bokkut teg nag sama soxna bu defee nangam dinaa ko mooy sof bu ko defee dinaa ko ak bu defee bu ko defee fase naa ko du benn tii ay mbir la yoo xam ne day faral di am ci pénc mi te ñu bëri duñ ci bàyyi xel kon su fekkee soxna si yàlla booy na li nga war a doxee ak moom mënoo doxee ak moom am na yu bëri yi ngay gaaral sa diggante dañuy jàpp ne kon foofu sëy bi day daal di fasewu seen diggante day daal di jeex ku ne dem yi ñaar ñëpp ngeen dem bu dee sëy bi nag bëri na ay jafe-jafe ku góor kan koy jàngoonte ku jigéen li ci gën nañ dem ci yoon ñu fa ñu tay xalé leen ngeen dem ngeen dem ku ne dem bu jeex tak ndax parce que sey yo xamni ciow gudd ciow coow ku ne di ciow ku ne di wax loolu ay mbir la loolu ko waral nak moy tanno fi ngay dugg sey dañuy tànn fi ngay dugg ci jigéen ki day tànn borom kër ku goor ki day tànn euh, soxna bu ngeen ko def rek jafé jafé mën naa bañ am waaye saa boo di xol ko rafet ba am am lu ci bari sey yo nonu du yagg conseil ci internet bi nak yim mu bari na ndax ki ne la sa jëkkër nang sama jëkkër nang sama soxna nanga def nga dem bu appliqué loolu soxna da ngay am problème sa soxna si kooku est ce que soxna si kii est ce que benn la sa soxna soxna si kii est ce que benn la sa borom kër ak borom kër kii est ce que benn la sëy du lu ñuy lu ñuy réglé ci ay réseaux sociaux sëy lu ñuy toog di ko waxtaanee lay doon lu ñuy toog di ko waxtaanee pour jàppalante jarani wàllu famille la wàllu famille ko réglé am na sëy yoo xam ne ba mu tasee la famille bi yàqu mooy sëy mbokk yeeg sëy yi ne ba mu tasee la famille bi yàqu ndax parce que lu ko waral mooy jàppalante ne ay een sëy lu ñuy waxtaanee la ànd ak tàqalikoo lu dagan la loolu dara nekku ci loolu loolu lu mën a nekk ndax parce que mbir la moo xam ne yàlla moo ko tënkee noonu kon dugg gi ci nit ngi dugg te waruñ ci woon a dugg loolu bokk na ci indi jafe-jafe yi war na tey ñu jël ci tomb pour ne leeral gént ñu fase la ak avant ngay gént fase lan lay tegtal kon nit ñi nag dañoo wutee nit ñu wutee noonu la seen ay gént di wutee ak ay tolluwaay yi nga toll ak ci jamono ji nga nekk am na ñoo xam ni ñu koy géntee noonu lay demee ndax nit ñi bokkul am na ñoom tey ji dañuy nelaw ba xaral doog a génn ñoo ñeg seen génn lu ci bëri adxaaful axlaam lay doon rek mën na wér mën na bañ a wér waaye ki nga xam ne daa tëdd nii rek commencé xap xappal ñu wànk lu ci ëpp foo fekk kooku dañ koy ilham dañ koy wan kooku na koy géntee day doon loola gént fase nag dana doon ak ñàkk ci nit ki am na ci ñoo xam loolu lay doon am na ci ñoo xam day doon tàqalikoo ay jafe am na ci ñoo xam problème yi nekkoon ñu ciy génn am na ci ñoo xam ne feebar bu leen daloon danañ ci génn balaa yàgg am na ci ñoo xam ni taqaliko ak rab la am na ci ñoo xam ne seen boroom kër day faatu bu ñu fase leen kon ñii ay tomb la yu aju ci wàllu gént fase euh, ki nga xam ne nag euh, dangaa gént sa waajur wi faatu ne la faseel sa soxla loolu saa bu amee dana doon ñetti étape ci nit ki génti gént gi danay doon benn jëmmi kooku mu ngi ci ay mbir yoo xam ne na ko bàyyi nekkul lu gën ci moom ñu ko koy misaal beneen bi ci toppaat dana tegtale ay xat-xat wala ay jafe-jafe yu mu doon jànkoonteel yàlla di ko ko teg teggil bi ci toppaat nag mooy dana wane ni bu doon doon ñaanal waajuram bi njéggal yàlla mën na koo jéggal ci jafe-jafe yi mu doon jànkonteel suñu borom di koo teggin kii jigéen la goo xam ne dafa ëmb mu gént gis ne borom këram da ko fase dana ñetti anam yoo xam ne danay faral di am benn jigéen joo xam ne day tiit bu baree bari ci wàllu am doom ci sikki sàkk loolu dina tegtale nga génn sa borom kër fase la bi ci desaat dana tegtale jigéen joo xam ne dana wane ne ay am doom mën naa am doom ci lu yomb nag dana am doom ci lu yomb bi ci de desaat tamit dana tegtale jigéen joo xam ne kim ëmb jigéen lay doon mooy dana tegtale am doom ju jigéen moo tax ci anam boobu moom baax na euh, beneen bi ci toppaat ki nga xam ne amagut jëkkër wala amagut soxna mu génte fas yow loolu baax na loolu dina tegtale koom mooy alal juy dugg sa loxo wërsëgu yaatu gi ñëw ci yow beneen bi ci toppaat bu la fekkoon ci ay jafe-jafe balaa yàgg mën ngaa génn ci jafe-jafe yi bu fekkee nag ku jigéen koo xam wala ku góor moo gént am jafe-jafe ak soxnaam ban dem tribunal loolu moom saa bu amee rek sëy bu tas lay tegte lu ci ëpp ni waane am ta doon du boo xam tasu wala sëy boo xam ne jafe-jafe yi bu ngeen ko nee ci tàqalikoo ngeen di mujjee loolu moom loolu lay tegtale beneen bi ci desaat jigéen joo xam ne nag da ngay gént ñu lay fase loolu saa bu amee rek am nga faru rab bu la di la yakal lu bari wala far rab mana xam ne mën na lay gàllankoor sa digganteeg say borom kër wala sa digganteeg ay nit motax ci anam boobu moom euh benen bi ci topar moy ko xamni da nga gënt ñu fasale ba nopi nga amaat jëkër ci biir gënt gi dana doon ñetti anam bi ci njëkk bu la fekkon ay jafé jafé sa digganteeg say borom kër mën na tegtale jafé jafé yu jeex bu dee nak da nga ki la takkat ci gënt gi xam nga ne diw sàngam mo takkaat loolu sa bu amee rek dana wane ne danga jànkonteeg ay xat-xat ay jafe-jafe ci li la wër wala ci sa mbiri bopp yow moom bu dee nag kim tak ki la takkaat xamoo kum doon loolu baax na loolu ay xat-xat yoo doon nekk yàlla di la ko teggil maanaam ay jafe-jafe yoo nekkoon yàlla suñu borom di la ci génne bu dee nag da ngeen am ay jafe-jafe yéen ñaar yow sa borom kër da ngeen am jafe-jafe nga gént mu fase loolu baaxul loolu saa bu amee rek problème yi lu ci ëpp problème yi day yokk ah. mooy pour ngeen am solution seen wàllu diggante dana xaw a jafe lool sax beneen bi ci desaat tamit oh. koo xam ne amagoo borom kër nga génn sa far bi nga xam ne moom nga nekkal mooy de la fase loolu baax na loolu saa bu amee rek benn dana tegtale ni mën ngeen a jàpp dat pour wàllu sëy ba way laa dina waxtaan ak yow lu aju ci wàllu takk koo tax ci anam boobu moom ku ko gént mën nga am yaakaar lool nag bu dee nag koo xam ne danga doon sangu sanguwaayu saafara lu aju ci wàllu rab nga gént ku ne la fase naa loolu baax na loolu saabu amee rek rab yu la doon yàqal yàlla mën naa dogal mën nañ laa wan gannaaw mooy rab yi la toppoon daal di la sonal wala indi ay jafe ñu ngi ci yoon wan la gannaaw pour bàyyi la moo tax loolu moom saa amee rek baax na lool ci wàllu gént euh, beneen bi ci desaat nag koo xam ne danga gént euh, sa borom kër mel daal dafa am mu fase la mu fase la yow lolou baxul lolou sa ba me dina tektel ak ñak ben bu no ko nek ci placeu liggey kay na tektel placeu liggey kay man nako ñak bu doon tamit ko xamne dafa am mbir yu muy dugg man na cee tey bu ba xamne bu ci duggee man na ci am ay jafé jafé lo tamit lu ma di bay xel la kon bokk yi nga xamne ne aajowoo numéro man nañ ko jël 78 443 75 27 ñi nga xamne dañu bëgg ñu fi leen gënte wala ñu defal leen di sahar inshallah rabbi beneen bi ci des itam ñi nga xam ne wàllu kumte wala cat da leen yàqal lu bari way ñi nga xam ne dañoo bëgg lu aju ci wàllu ubbeeku wala ay jaaro yoo xam ne day dox ci wàllu bayre wala mahabba nit ñi bëgg la nit ñi sopp la loolu incha allah rabbi mën nañoo jël numéro bi ñu woote ci wala ñu vocal ñu ci numéro bi bu dee firi gént yi nag dañ koy fayeeku moo xam nga woote wala ñu vocal wala na ci nit ñi bàyyi xel bu baax ndax noonu lay liggéey bi doxee pour ñi nga xam dañuy bëgg ku leen firil pour kon ñu bàyyi ci xel baax kon numéro mooy 78 443 75 27 bu dee ñi nga xam ne wàllu ndoxu siti def leen sono lool wala émorite wala néew kàttan wala ñu am jafe-jafe ci wàllu ay walla njaan ba mu téye leen am doom wala koo xam ne wàllu rab da koy yàqal lu bari mënta am jëkkër wala mënta am doom yooyu yëpp incha allah bu ñu wootee na leen jox ay tegtal wala ay teg ci yoon ba jàppal leen suñu borom dogal daal jafe-jafe boobu ñu taqali koog moom ci jàmm incha allah rabbi kon numéro mooy 78 443 75 27 batay eh, ko xamni nak da nga gënt euh melni mel ni ko ham daal fassé fase sa soxna fekk da nga loolu it baax na loolu saa bu amee rek bu dé kum fekk ci feebar di nga wër waaw kum fekkon ci feebar mo mën nga ni bi di nga wër jigen jo xamne dafa gënt borom kërëm fase ko loolu bu dé sa borom kër dana tektel ak tàggoo moy seen digënté mën na jeex té bi jeex mo day tektel mo day faatu lolit eh, lolay tektelé bu dee jigéen joo xam nag dangaa gént sa boroom kër faatu na ba noppi nga gént mel daf la fase loolu it dana tegte la ne am na ay mbir yu mu bàyyi gannaaw bëgg nga di ko sàmm te na koy sàmmee des na maanaam njaboot gi la bàyyi daal dana tegtal daal bëgg na nga yar leen teg leen ci yoon loolu ko gént rek gën a la góorgóorluwaat bu baax a baax ci si diggante yow ak njaboot gi ngeen am beneen bi ci toppaat nag mooy koo xam ne dangaa gént sa borom kër fasal te yow dangaa feebar loolu dana tegtal ay xat-xat wala ay jafe-jafe yi jeex beneen bi ci toppaat mooy jigéen joo xam ne dangaa génn sa jëkkër fasale keneen takk loolu dana la xaal bu bees mooy e, génn ci xaal bi nga doon nekkoon doon ko jànkonte da ci génn jëm ci beneen xaal boo xam ne xaal xaalu changement daan ci misaal yokkute lay doon ak ubbeeku ak ay mbir yu la jafe woon lool yàlla di la ko yombal mooy jigéen joo xam dafa gént borom këram fase ko ci gént gi mu aween borom kër Euh, te borom kër bii am na xamu ko loolu moom saa bu amee rek soppeeku ci ay mbir lay doon euh, beneen bi ci desaat nag boo xam ni dangaa gént euh, ñu fase la te xamoo ku la fase ki mu doon te fekk na yow xamoo ku la fase daal ku doon da sa borom ko waaye yëg ngeen daal nit taxaw nga fa loolu it saa bu amee rab bu la toppoon lool di la sonal danga nga yëg ne daal mën na laa bàyyi yaa ngi dox ay jéego yoo xam ne dana la bàyyi bu bu gaaw a gaaw Euh, ki nga xam nag dafa gént euh, magam wala rakam ci gént yi daal mel ni da ko wax dama laa fas te fekk na kooku noonu mënu koo takk bu dul gént loolu saa bu amee ay jafe-jafe nag lay doon waa jafe-jafe lay doon si sa diggante kooku yoo xam ne mën naa gaar seen diggante maam daa mën ngeen am ay coow wala ay jafe-jafe euh, ba teyit it koo xam ne nag dangaa gént fase soxna ci génti nga takkaat ko loolu it bu dee wërsëg wooy yaakaar mën nga cee jot balaa yàgg maanaam mbir yooyu lijjanti wala mbir yooyu yaakaar ci wàllu wërsëg eh, bu doon daf laa jafe lool yàlla mën na la ko yombalaat ba mu dikkaat ci say lox moo tax ci anam boobu saa bu amee rek nit ki mën naa séentu ay mbir yu ko jafe woon lool yàlla di ko yombal eh, ba tey koo xam ni nag eh, dangaa gént man la yaay ñaan baat jigéen joo xam ne dafay ñaan baat ci gént bu fekkee dafa ëmbut na teg tegtale doom ju góor beneen bi ci desaat tamit dana tegtale avancement ak yokkute ci wàllu ay mbiram te bu dee ko ëmb tamit dana wane ne doom ji mu ëmb yàlla mën naa dogal mën na koo amal ay njariñ lool sax am na noo xam nag saa buñ géntee ñu fase leen loolu dañ leen di fase ñoom effectivement ñoom dañ leen di wan seen ay mbir moom yàggul li ëpp ci nit ñi nag saa buñ géntee ñu fase leen tegtal dañ leen di fase waaye ay mbir lay doon yoo xam dañ ciy génn am na ci ñoo xam day tegtal ay jafe-jafe même ku fekkoon ci ay problème ku nekk ci ay problème nga génn sa borom kër fase la wala ñu fase la Eh, moo xam nga nekk sëy wala nekkul sëy loolu lu ci ëpp saa bu amee rek ay jafe-jafe yoo nekkoon di ko jànkonteel wala ay xat-xat yoo doon jànkonteel nga ciy génn ci nu mu gën a gaawee bu dee nag koo xam ne da ngay waaj a sa soxna la ma loolu it baaxul wala soxna la ñaan baat loolu saa bu amee rek gënu dañuy xamal ne yaa ngi jëm ci yoon boo xam ne mën nga cee dugg ci ay jafe-jafe beneen bi ci daal bu dee comme da ngay listixaar sëy nga gént fase loolu baaxul loolu dañu lay xamal ni jigéen la joo xam ne bu ngeen sëyee tamit seen wàllu mbir bopp mën naa bañ a yàgg ndax dana tegtale ay problème mën naa bëri loolu seen digganteem ak tàqalikoo mën na ci am beneen bi ci desaat tamit koo xam ne sa waajur mu ngi dund nga gént mën la faseel sa soxna wala sa waajur mu nga gént mën la tàqalikoo sa borom kër loolu ñaar lay tegtale benn ci kili ko géntal wala yow ko géntal bu dee sa sa mi nag moo la wax loolu dana tegtale ni ay jafe-jafe lay doon ci diggante moom ak sa soxna wala moom ak sa borom moom ak borom këram dana wane ne am na ay jafe-jafe yu nekk seen diggante bu dee nag sa waajur nga gént mun la faseel sa jabar ñi sa waajur wu góor loolu it baax na loolu dana tegtale ay xat-xat wala jafe-jafe yoo nekkoon yàlla dina ko teggil maanaam mbir yoo doon jànkoonteel moom yàlla dina ko teggil euh, ba tey ku feebar amna ci anam bo xamni ni gënul bu dee koo feebar ba noppi gént ñu fase la ci ño xamni ni saa amé rek ak faatu lay tegtale ci ñoom moy moy feebar biñu tegg ni man nañ ci baña am ño xamni sabu bu ma ak jug la maam ak wirat la ak wirat la ci feebar bu fekkee nak ku ci doon ñaanlu nga fekk nga na ñaan sa tawat ji nga gént ñu fase la loolu it dana tegtale ni bu doon ñaan la aajo ju faju la mën nga japp ne ci la doon ñaan aajo ju faju la am ci ñoo xam ne am baat bu lay di la xamoo kum doon loolu ben, dana dana tele ku dee dëgmal si benen bi ci dessa tamit dana tele eh, far rab bu la toppoon dooñ la yakal nga yëg ne dal bala yag man na la bay loolu dana dana tele lol, ala kulli halin benen bi ci dessa tamit gent fase jigen jo xam dal seqoo len ben kóllëre moy ndaw sos nga fase dal, yëg nga ni ko du sa mbokk bokkul la da nga jitt jëmel dal dang koy fase yow daal ko fase ci genti, lolit baxna saa bu amee rek yëgal ni di nga génn situation bi nga nekk dem ci situation bu gën a kawe boobu maanaam da nga génn ci jafe-jafe yi nga nekkee daal ba noppi dem ci yeneen jafe-jafe dem ci yeneen xaal yoo xam daal ay jafe-jafe yooyu génn lay doon loolu nag ci anam boobu saabu amee man nit ki mën na séentu ay yaakaar wala avancement ci ay mbir yoo xam ne yàlla mën na koo jàppandal euh, beneen bi ci desaat tamit jigéen joo xam day divorcé ak borom këram daal ba delloo ko la mu ko joxoon loolu it saa bu amee. dana wane ni seen walu sey amna ay nit ñu ci dox ñoo xam bo gor golu deug mën nañu indi ab tàqalikoo sa digeentek sa borom kër moy ay nit ñu lay yakal sa walu sey wal nit ñu yak sa walu mbiri bop même ko xam da ngay wut liggey gént mel na nga fase sa soxna lolit baxu dañuy xamal ni bu dee liggéey la mën na doon liggey bo xam so su si mën naa ay choona wala mën na bari ay jafé jafé pour nga réussir wala pour nga am ci la nga doon bëgg dëgg dana xawa jafé motax ci anam bobu tamit baxu Eh, ba tey mm, koo xam ne nag eh, dangaa gént gis sa borom kër mel ndax fase beneen soxnaam daal xam ngeen kii diw sàngam soxnaam la mu fase ko loolu it baax na saa bu amee dana doon ñaar ci gént gi benn yow mi ko gént na tegtal boo leen fekkoon ci ay problème yàlla mën naa dogal mën ngaa génn ci problème yooyu brida tamit bu fekkoon sa borom kër ci ay mbir yu muy sàkku yu ko jafe loolu yàlla mën na ko koo yombatal bu baax yàmbaloo ko ay mbir yoo xam ne yàlla dana tax mbir yooyu mu jot ci kon gént fase bari na ay misaal yoo xam ne am na ci lii nag ay takk-takk la wala ay misaal yoo xam ne danay faral di gaar ñenn ñi waaye nag fase du caaxaan surtout maa ci burut gént bàyyi na ko nit ñi di bàyyi di fooyee mooy fase naa di ko fooyee loolu kenn du ko fooyee ndax wàllu diine la ànd ni mu daganee noonu la taxali ko dagan waaye daal ab sëy kenn du ko weer ci am penc lu ñuy weer lu ñuy waxtaanee ci biir kër ak biir yi kenn du ko teg ci am biiru penc ku ne di ci wax ngay jël xalaatam saa boko defé defee sey sëy mën naa bañ yag ku gor boko defé sey sëy mën naa bañ yag ku jigen boko defé sey sëy mën naa bañ yag ndax famille bokul say mbokk ak ay mbokki ke du ngeen ben sa yaay ak yaay ci du ben kon bo beugay jël sepp sey diko wër ci seyu kenen lolou da lay indil ay jafé jafé kon bokk na ci li tax divorce ci bari moy sey yi bëgg mengalé sey yi mënu ñoo doon ben ndax nit ñi mënu wuté non la famille wuté bul def tamit fo gis ak jigéen tak sa boy def fo gi jek dug rek lolou man nga bañ yag ci walu sey kon lool it bokk na ci liy indi jafe-jafe kon nañuy tànn ku ñuy takk bu baax xam fi ñuy dugg loolu dana la dimbali ba soxna si ngay takk ëllëg ak tàqalikoo doonte mënta ñàkk nag waaye day doon loo xam lu jafe lay doon kon sëy yu bari jafe-jafe yi lu ko indi mooy ñenn ñi ñooy def fu gis dugg wa ilaa ñuy bëgg dundee noo xam ni kee yow ak moom bokk leen kon nit ñi nañ bàyyi xel ne sëy jaamu yàlla la sëy nekkul lu ñuy fooye sëy nekkul lu ñuy teg ci penc mi foo jógee am ci kàddu kon jafe-jafe yi li ci bëri am na ñoo xam ne ñoo ko teg seen bopp nan ñaan yàlla suñu borom rek defal ñu tawfeex baax lépp lu ci jub rek ñu sante ko waaye lépp lu ci dëng rek nañ xam ne mat dig doomu aadama la wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu